ñi ngi nuyu ñi fi tew ñëpp fii ci ci kër président Aliou Mamadou président parti suñu responsable moral Seydi nous sommes persuadés qu'il est avec nous nuyoo yi Pape Diagne jiital na ko te temps bi dafay dem mais bu ñu nuyoo président Aliou moom mi nga xam ne moom lañ fekk ci këram tey nuyu doyen Cheikh Mbeng mi mu àndal nuyu directoire bi muy suñu mbokk Cheikh Tidiane Youm ak Cheikh Tidiane Ndiaye nuyu mouvement des femmes nuyu la jeunesse nuyu SG yi fi daje ak responsable partie bi yëpp ñetti kaddu rek lañ bëgg a wax ki tànn ki mu ak c'est-à-dire le choisisseur le choisi et le choix ki tànn mooy kan Seydi Mouhamadul Moustapha et pour bien choisir il faut maîtriser les paramètres du choix. Et c'est un homme qui maîtrise les paramètres du choix. Les paramètres, conjoncturels, les paramètres de l'heure et au-delà, les paramètres mystiques. Donc son choix, son choix ne saurait être qu'être que pertinent. Et le choix a été pertinent. Ah oui ndax moom dafa xam te ki xam moo mën a tànn fi Sénégal tollu ci dimension mystique fi Sénégal dans ci dimension intellectuelle am mais xam fi Sénégal toll par expérience amul benn homme politique au Sénégal bu gën xam Serigne Moustapha le Sénégal amul leader bu gën maîtriser lan moy Sénégal lan moy difficulté sénégalais il a toujours été du côté du peuple il a toujours été du côté des opprimés jamais du côté de l'oppresseur il a toujours défendu le peuple lolou moko jaral traversé pendant plus de 40 ans limu jankontel kon xamna Sénégal fumu tollu xamna liñu soxla et mon deuxième point bi le choisi Qui nous tànn c'est qui c'est Aliou Mamadou le choix est d'autant plus pertinent que fi réew mi actuellement situation difficile, difficile situation chaotique. chaotique situation boo alarmiste et alarmiste à la fois mais mu tan ko xamné ne bi mu addo kérok ci profession de foi am moom xam li tax ñu tan ko parce que li nga xamné ne mooy inquiétude sénégalais yi li nga xamné ne sen seen préoccupation dafa jël kàddu ci profession de foi rek mu wax ne mom lolu bu yalla dogalé mu jël réew mi loolu lay ñëk attaquer c'est quoi c'est cette jeunesse qui a perdu tout espoir mu dana fexé ba dundalat yaakaar ci ndaw ñi Dana fexé ba les jeunes qu'ils soient satisfaits de rester au Sénégal satisfaits de partir et satisfaits de revenir Lolu ku xamul responsabilité biñ ñu la dénk sañoo ko wax mu tek ci jigen ñi ak lim wax ci ñom. Buguma dugg ci discours xeyna mom dana ci gëna ñëw waaye li mu àddu keroog ci grand théâtre sénégalais yëpp seetaan ko ça démontre encore une fois que c'est un choix qui rassure dama wax keroog ne dañu am suñ benn baayu daaya daara muy Pape Katim Touré daf daan wax ne kilifa mën na la tànn waaye nag yow yaay fexe ba tànnu moo tax Aliou Mamadou Dia tànnu na ndax ñaar yi ñu soxla te suñ borom wax ko ci alquran inna allaha astafahu alaykum wa zaadahu bastatan fi l ilmi wal jism beneen bi mu ne ij'alni ala qadaa'ini l ard inni xafizun alim daje na ci moom yàlla dafa ne bu ñuy tànn buur te mooy njiitu réew nañu tànn ku am aptitude tànn ku am compétence mais nañu tànn ku am sérieux aussi tànn ku am expérience te loolu daje na ci moom Il n'a pas fait 20 ans à l'ONU pour ne pas récolter une riche expérience Quand donc expérience amna, compétence amna, sérieux amna, c'est ce de set politicien professionnel il n'est pas il n'est certes pas te fini mais politicien professionnel li ñu soxla mooy ku xam fi réew mi nga indi xalaat bu wér teg ko ci xam-xam ak jikko ju rafet programme nit ak naataange nit ak naataange ku mën dérouler programme boobu mooy ku xam lan mooy dignité humaine ku xam lan valeur humaine kooku moo mën diriger programme bu toll noonu kon encore une fois le choix de Aliou Mamadou Dia c'est un choix qui rassure pourquoi le choix te mooy le contexte contexte bi c'est pour la première fois dans l'histoire du Sénégal que ma wax cette fois-ci folliwuñu dañuy fal Sénégal li fi jaar lepp dañ doon folli mais cette fois-ci dañuy fal alternance fi jaar yépp waxna ko barki dem ci benn émission buñ ma invité won mané alternance fi jàll yépp c'est un changement d'équipe ay mais c'est les mêmes systèmes les mêmes pratiques les mêmes combines et les mêmes conneries qui ont commencé de 1960 à 2023 il faut que ait maintenant le 25 février 2024 que ça cesse et pour que ça cesse il faut qu'on choisisse celui qui porte le projet d'un Sénégal nouveau je veux nommer le président Aliou Mamadou Ce projet d'un Sénégal nouveau, Tidjiko, le projet d'un Sénégal nouveau, qui orientation, le projet d'un Sénégal nouveau, qui qui nit ñi ci xat qui àdduna ci tumuranke yóbbu le ci ñu préserver sa dignité aaye imam Djang, Pape Diagne wax na ko léegi ne yàlla mooy foqar ci waaye yàlla moy joxe nguur kon ñing koy talal suñ borom moom miy foqar ci nguur inzail mulka min benno bokk yaaka wa atil mulka li Aliou Mamadou Dia yalla mën nako yalla nako def maintenant le chemin qui mène vers la présidence de la République ce chemin là il y a plus qu'un embouteillage là-bas Mao Zedong dans la révolution ce n'est pas un dîner de gala ça ne sera pas facile mais c'est tellement rassurant c'est tellement rassurant pour que nous ayons confiance que le jour du vote notre candidat triomphera et gagnera haut la main pourquoi je le dis le parrainage parrainage. nous ndax assuré la caution est cautionnée par les femmes. La mobilisation assurée par les seniors, par les femmes et par les jeunes, avec les prières bénites de notre président. Qu'est-ce qui reste Le chemin qui mène vers la présidence de la République est balisé. Soyez rassurés, Monsieur le Président, vous avez les prières du responsable moral, vous avez la détermination du directoire du PUR, vous avez la détermination des militants, la victoire est assurée le 25 février, Inch'Allah. Merci.